question de la nationalité est-ce que waruñu ko régle benn yoon euh, mu mu. féete man du ma ci débat loolu du ci débat. lu tax man ñi ci dara du ma ci wax ak ñoom. ñi ciy wax ñu ci bëri ay xamuñ ci dara di wax damay ree rek. waaw mais dama ne. ak ñuy wax xamuñ dara ci loolu. dama ne. nañu bàyyi dañ ne pour être candidat il faut faut être ex waaw mais les sachants dañoo war a wax waxaat. ñi nga xam ne xamuñu. Ah. maître aussi dañ la woo fii pour loolu. man ñëw en tant que en tant que seen seen consultant ci affaire yi. non non waxuma consultant. ma ne je suis venu en tant que candidat recalé. vous êtes un homme politique le parrainage. les élections les retrouvailles. ma ne wala les les les nouvelles configurations. ma ne les les les les autres. vous êtes un homme politique la dynamique unitaire. est ce que yow est vous êtes exclusivement de nationalité sénégalaise. duma ci tontu. <laughs> maintenant vous êtes un homme politique. duma ci tontu mu am une nouvelle. controverse bu concerner la question de la binationalité Thierno Alassane Sall déposé un recours contre Karim Wade Karim Wade a répondu en disant que il a renoncé à sa nationalité euh, française ah, alors voilà alors man li may li may li may laaj mooy est-ce que àddina bi évolué wul euh, ku mel boo jëlee kaaw ku mel ni Karim Wade moom dafa dafa dafa dafa nàmp euh, dafa dafa euh, France ci patriote la bokk mm-hmm. Euh, est-ce que war nañu toll en 2024 fu ñuy demander à une personne euh, qui a deux patries qui est à cheval sur deux patries de renoncer à une euh, de ses de ses de ses patries mères parce que dafa war a nekk président ak monde bi nu mu évoluer globalisation bi euh, citoyens yi ni ñuy déplacé woo d'un continent à l'autre te dafa mel ni la question de la binationalité nag na indiwaat problème ci élection bi te question binationalité boobu dina lakk na Côte ah. d'Ivoire te dina ko lakkaat. tu as vu le ci ci Tidjane waxu waxu nationalité. Ah. Alassane Ouattara à l'époque gis nga fi mu mënee Côte d'Ivoire. Euh, actuellement il y a une controverse autour de Tidjane Thiam ñu naan sénégalais la c'est pas un Ivoirien souche. voilà loolu ko bàyyi dañ ko teg ci suuf. question binationalité. waaw dañ ko teg ci suuf te suñu footballeur yi dañuy jox ndam lii ñoom ñëpp ay binationaux lañ. ñoom ñëpp léegi mel ne ñu jógee ci seen seen seen réew yi cosaan seen réew bàyyi am na ñoo xam ne mësu ñëw Sénégal avant o doon équipe nationale ñu ngi juddoo France dégg sa olof nekk ay français après seen bàyyi rek Sénégal wala seen yaay ñu tëddee nationale sénégalaise léegi ñuy football di di gagné nañu bàyyi wax yooyu nañu bàyyi yooyu dañuy tardé. donc bu fekkee ne dafa bokk ci neuf pièces yi. yow da ngay préconiser une réforme pour ñu. pour loolu après loolu pas bañ bàyyi aussi de façon ponctuelle problème am na yéen tout de suite nañ ko réglé loolu da ciy réfléchir lu yàgg xalaat ko xool les tenants et les aboutissants les avantages et les inconvénients ne ah léegi nag ñëpp d'accord ci mais pour le moment Karim nee na moom bàyyi na nationalité ba de dañ ko bàyyi loo xëy na bàyyi na ko xëy na. mais du Karim Wade rek am na beneen candidat bu ñu visé euh, pour une affaire de bi binationalité. boo xam ne def nañu bon je veux pas. kon Karim rek mën a du Karim kese. non en fait Karim le débat il est connu. keneen ki euh, les vérifications sont en cours mais je sais que euh, ci recours bi ñu ne a déposé contre moom waxu binationalité. Euh, mais tudd ko rek fii que transparence la. non mënu ko wax xam nga yow tamit am na am nga loo xam ne. nee nga boo tuddee Karim ci benn exemple kay ci ñi nga xam ne. ñoo loolu la Karim Karim Karim man gëm naa ni. li ma gëm de mooy nee na joxe na preuve ne moom renoncé na à sa nationalité ko laaj ji jeex na ah bu renoncé mu ne renoncé naa génnee preuve joxe ñu yóbbu lu ci des léegi nañu bàyyi xam nga esprit dialogue bi mooy ñëpp bokk. dañu bàyyi di jéem a génne kii génne kële ku mën sa morom duma